Théâtre National ñu ngi lay nuyu ñu fekk la tay fi nga xamanteni ni moo di lancement Jojo Express bi ci loo nekk. maa ngi fi maa ngi si jàmm bu baax a baax a baax waaw maa ngi sant yàlla alhamdulilah daal di def robe bu noir borom céréales yu meilleur yi ci réew bi dëgg la maa ngi ne secret céréale bi dara parce que ku ne xam na ne dugub ak mboq lu muy def si yaramu doomu aadama et que lépp lu ñuy jaay dañuy bëgg mu nekk loo xam ne day nekk bio sénégalais bu nekk mën ci gis sa bopp ku nekk mën ci yëg sa bopp aussi naturellement et que ñu ngi koy jaay macha allah ñu ci ñu ngi koy jënd et di ñaan yàlla mu gën a yokk incha allah. traverse Snap da nga koy posté tout le temps yow ak Jojo ci sa bi ngay diwoo tey lan nga ñu mën a wax tey ci Jojo. Jojo man je veux dire que Mame Diarra Thiam parce que man moom bi ñuy xamante du ay diw du dara yàgg na léegi ma 10 ans mu nekk sama xarit bu yàgg nag sa boobu nekkul sa Sénégal mu ngi Paris kenn présenté wuñu yàlla moo def ñu xamante mu yàgg et mu nekk nit ku baax nit ku gore. ni mu mel rek noonu la mel depuis temps d'années mosul changé benn nit bi ma gisoon ci moom depuis ma xam ko loolaa xam ci moom et que tey boroom këram tamit di ku baax di nit ku baax ku am ngor ku am koo xamante ne lu mu am rek moom tamit mérité na ko parce que lii nit yi di àndee rek mooy ngor ak ak bëggante ak soppante te loolu laa gis seen diggante ñoom ñaar day ñaan yàlla la fa leen lii ñu lancé nii mu nekk yu bëree bëri bëri incha allah yaa ñu mel ni comme li nga wax rek donc ngor nga ànd ak moom mu doon koo xam ne dafa am coloré mais ñu gis ni aussi tamit yaa daan na ànd ak ñu bari mais gis gis ne yaa dafa réservé wu bu baax a baax lan mooy sa problème ak xale jigéen ñi. Ah, aw ma benn problème kenn àdduna di toll foo ne bi ku ne da tal sa bopp te boo nekkee ci benn affaire da ngay xool ñi nga xam ne ñoom nga war a ah. àndal ak ñi nga xam ne waroo ànd ak ñoom parce que at mu jot ak li ciy xew kon lu ci nekk man man aw ma kenn problème man ko xool ba gis problème rek loolu yow lay engagé man awma ken problème parce que man xol bi may andi ak nit peut-être des fois moy ëpp ba lu bari daf lay gañ te bëggatuma dara. non non en général duñ la ko fay mais yalla daf yalla mi am fay mu ngi lay fay bopam parce que do torox et que yaa ngi ànd rek ak sa ak say ñaanu wajur le reste amul problème quoi. kay kay kay ni yow mën nga seede ci mam jaar nak ñun dañu dañu dañu dañu ñëw rek gis na yaa mam jaar ngeen and man ci seen yeen ñaar la gëna xam boole boolewul ak moom sa digganteeg maam jaara mën naa ne léegi mu mat benn temps ngeen doon ay xale yu ndaw yàlla xiir la ci moom yow lépp loo seede ci maam jaara dëgg la waaye yal na yàlla ko jël li dum moom wax kenn mënu ci teg dara dana la jox kàddu maa ngi nuyu ñëpp tey su ñëpp toogee aw ma sax pour wax parce que li ñu war a wax wax nañ ko mais kii mën naa wax ci moom parce que fekkee naa lu bari day nit koo xamante ne bii bu dee ay jëf yu nit ñi gis sax nee naa la li muy li muy wane moom li ñu gisul ñu ko fuuf parce que yombatul ngay ànd ak sa nawle du ko dimbal te kii mu àndal te ay mbokkam xam naa leen muy A ba Z mais Mame Diarra ni mu meloon ba tey noonu la mel dara changé wul ci moom ku yaakaar ne sax yow la gën a bëgg da ngay nas ko bopp parce que moom xolam noonu la toll te benn wax bi ma koy wax moom laa koy wax kii du ko jege parce que loo koy waaj a wax rek xam man entreprise bi ma am da ko doxal Mame Diarra moom itam tur moo may wax li ma ciy def moo may wax li ma koy doxalee te lu ma ci wax dara du ci teggee parce que fii kenn moomul kenn pour di wax ay doomu aadama amuñu dëkk boobu te sa tur ma wax la ko mbaax gi nga baax defoo ko ci mbedd ma ci sa biir nga ko ndikke ma fekkee sa yaay toog ma fekkee man tooguma ba tey di doo ko fekkee te li nga mel bu fekkoon da koy tricher kon jeex na bu yàgg Louga mi toog lu mu am daf koo mérité parce que ñun lépp la ñu fekk mais li mu mel nii changé wu benn yoon dama lay wax chaque jour moom bu koy woon boo ko xoolee da koy xam. parce que fii àdduna bi toll la ku defal nit sax da koy xalaat. dëgg la boo ko defal dana mu koy xalaat parce que daf la koy fekk. te yow loo am mérité dama koy wax ci gaaw ma fekkee ak nga ñàkk a fekkee dama koy wax parce que loolu laa fekkee alal boolewul ànd bi boolewul mais sa xol nga àndee ak koo mënti ànd ci am na te lu nit di am lu baax réew mi da koy am. man maa ko wax. fekk na gore nga Mame Diarra looy defal nit doo ko wane lu ko bindal chèque mu yaakaar ne moom moo ëppale parce que sa xol ngay demee yal na yàlla fay sa xol dama ne woon nii man woon ñàkk. xale bu baax la boo xam ne ñun ñii nga xam ne ay bokk Mame Diarra la ñu dañuy ñëw fekk ko ak Mame Diarra ba dina gën a xale ba léegi di aar. tey ci caméra yi. waaw waaw yow léegi sànq ba léegi. Moussa Dóor la ñu nag jamono di dox. ma xamanteeg moom mu nekk bu baax nekk toog nekk neex a ànd muy sama rak mu magoo ma rak bi ma xam boobu ñetti tur la yoroon fii subaari kàlla macha allah sama xaaral fi comme ni ma koy waxee mu ne ma damaa bëgg a publicité ko ah soxna si boo amee fit rek ñu dem ñu ne ma ay tëdd yàlla mi dara tëddul ñu commencé liggéey ci publicité Jangan boobu yaakaar na trente mille laa doon soxla quinze mille yàlla di mana déglu tey jii mën naa ne doo dégloo si damay sama loxo bi bàyyi kam waaw yaa man de ci yow laa ko gisee yang parce que xam ngeen lu tax dafa damaa bëgg liggéey ku bëgg ma ànd moom di doxal kon tey jii dañuy sant yàlla ba joogatoo si mën a taxawal leneen muy lan doole te yeneen day ñëw waaye du ko loolu nii dafa bokkul sama bërëb rek bu kenn xamul naa leen wax loolu moom kon la ma leen doom bu dëgg bi ma koy xam boobu bokk naa ba pare da nga maa woo ne man diw ko bëgg sëy ak liggéey ñooy ànd te fii boo bëggee doxal dëgg da ngay sëy te sëy dëgg xale yi xam nañ fi daal ku ko mos di nga toog boo gisee nit mu bëggal nga bëgg ko da ngay sëy ak moom te yàlla rek tax yàlla day ñëw maamu yónnee waxoon naa la ko sama waaj bu lëg ci loolu laay dox moo tax ku may àndal ci loolu ngay dox du ragal te moom it du ragal mu dugg ci Nduga Fall nag bari kàll macha allah mu dig ko lool sama jantam catu morom ñuy sant yàlla bu baax di ko sant moom dugal ndax kat góor bu baax moo lay dalal mu la dalalee mooy mooy tax na mën a am lii nga def kay fekk góor bu baax moo lay may yokk la ndax boo amoon góor bu yóbbu sa fit di la karaat wala mu lay mëg doo taxawal doo de gëloo bay taxawal doo de stress kon dama naan la gàcce ngaa laa ma ñu rek aa yow xam nga li ma la wax nit ku baax nag. nit ñi nag ñooy wax te xamuñu waaye ñun ñii dañuy seede parce que bu la nekkoon alalu maam jaara bii da nga fay tasaare waaye defoo ko jaay naan ko bee dugal ci lii defal lii di ko dugal ko génne te ñun waxtaan ak man nag sama rakk ci lu ma yëgul te lu mu wax nag nga teg ko yoon borom jom la dama leen ñaan. maam jaar dem ñaan ko yàlla lafal ko cat si laaj man loolu rek laa lay ñaan ñoom moom ci am xamoon tax da nga bëri dox te Sénégal xamagul na xam nga kañ la leen am ay la may fee juróomi at tabaarikàlla macha allah bàyyi la ni ma koy bàyyi bàyyi boo ragal li nga def ragal bu ko jëfee yow xam nga li ma la wax li nga def nii ragal bu ko jëfee te ci kaw ci kanam ci lu baax ndax sa borom yaa mën sa nit de say njaboot nga

xale gi dem du ñëw waa waa maa dem na wax fa dëgg yàlla nag ñi demul la da ngay demul rek toog jéemut kayitu juddu ak carte d'identité passeport waa Aïcha nga doon koo xam ne macha allah foo taxaw Sénégal ñëpp xam ne Babacar ñëw na lu waral lool. waa loolu nag ñaanu ñaanu waajur rek la nag ak nekk xale rek nit ñi bëgg ma jox ma bopp looloo ko waral. jooja nag dafa nekk sama mag ju baax ñoo doon ànd ba ni ma gisee nii. ànd nag ku joojoo doon nit ku baax nit ku am fulla nit ku am personnalité nit ku nangoo liggéey ajartu ma jooja caam rek a yaayam te yaayam bu ñëwaatoon defaraat toogaayam mu baax nag am fulla am personnalité nag bëgg jëkkëram ji te nangoo liggéey respecté jëkkëram ji barki Serigne Touba Mbacke billaay dama ko ñaanal na gudd fan ak wér gu yaram ba lépp loo xam ne moom la bëgg ci a bi rek yàlla may ko ci barki alxuraanu karim maam nañ ma xaat ci lépp maa ngi ñëw ci lépp te maa ngi waaj lu rëy. maa ngi waaj lu rëy maag Viviane bal duñu fetalu tàq barke Serigne Touba maa ngi koy waaj maag Viviane maa ngi koy waaj maag Daba Sëy te réew na toj ba pare le 6 octobre le 6 octobre waaw mi ngi waaj lu rëy album bi bal duñu fetalu tàq. jamono gi yow da nga nekk ci leneen. maa ngi ci leneen. barke Serigne. xanaa bongo na pare saa damay dem benn por benn samedi rek mën naa dem six programme nit ñi ku ne di di jooy di crise naan Babacar bongo la nekk. waaw loolu la nag barke Serigne mooy loolu. mais loo ci mën. Babacar yaa ngi waajal ñeneen orchestre ñi ngi dem nga war a ñëw tey waaw maa ngi nii baldu ñu fetul taax dama fas yéene dëbbam nooy ndax jooja lépp lu mu tëgg rek ci réew mi man la woo lépp lu mu xewle man la woo baldu ñu fetal lépp lu mën a tëgg rek man la woo sama waa jaa ngi nii mami ko traiteur bi baaxkat bi ci digg réew